ci loolu sëriñ Abdou Samane Mbacke mu sëriñ bu ni mu ko baaxoo defee ak mu jot ren ji it fas na ko yéenee def mu fas ko yéenee defee nag ca këram ga ca Touba Madiana 6 muy doon kon alxamis le mille vingt 2021 ca Touba Madiana 6 kër sëriñ Abdou Samane Mbacke Chouaïbou ni mu ko fas yéenee defee it mooy ay jotaayu xam-xam yoo xam ne dañu koy séq ak ay borom xam-xam yu mag ci yoon wi ñu fas yéenee waxtaanee wooteeb sëriñ bi ak jëmmi sëriñ bi taxawaay bi mu amoon ci diine ji ak ci njaboot gi.